askanu kanel yépp rafetlu nak tabub jëwriñ ji di nday sali job jang ci bop ministère bi ëmb jigen ñi njabot gi ak tout tanki lolé nak firnde nañu ko ci teewaayu kili ci département bi doxub nemmeeku jëwriñ ji ci gox bi nak aju rek ci tournée bi nga xamné ne nako jëm ci sukkali yënguteg jigen ñi nek ci bët gannaaru réew mi président de la république djumul choix bi daje naag suñu choix kontaan nañ ci li ñuy njëkkee sant yàlla mooy nit yàgg na nekk ci parti mais nga nekk jigéen sa présidente ñëw yàlla def ko muy ministre de la femme loolu du lu yomb loolu ñu la ci félicité di ci wane suñu kontante di wax waa Kanel aussi yàlla may na leen président dégg na leen da nga indi doxalin bu bees wax dëgg yàlla ministre de la femme ñu bari jaar nañ fi ku ne nak duñu ngañi kenn ku ne def nga li nga man waye nak madame la ministre yow doxalin bi ngay indi bala ngay ñew dañ ñu recevoir département de Kanel yépp nga recevoir parce que douze femmes des collectivités locales ñoo ñew ñoo ñëpp ay délégué lañ ci seen commune madame la ministre dañ ñu dalal accueillir nga teral ñu ñu wax la nak ñun nak ay gor lay wa département de Kanel fam yi ay gor lañu ñu ne nak dañ ñu dig bala ngay ñew bi nga defee li ngay def sa nga bob nga nan ci katanu yalla ak ci euh, euh numu tuddu euh, président de la république ci lu mu bugg dinaa ñëw seet si leen biñ ko waxee ñun ñëpp ñu kontaan waaye nga naan su may ñëw du ma ñëw ci ay loxo yu neen de li nga waxoon nag madame la ministre def nga ko. madame la ministre ñu ngi lay dénk jigéenu Kanel jigéenu Kanel ay jàmbaar lañ waaye aussi soxla nañu dimbale leen xam nga département bi dafa sori. looloo tax ñu bëri jotuñ ci am nañ nag benn mbébét boo xam ne ñoom ñëpp ñoo ko bokk muy problème ndox ñoo def dara ndox ndox surtout sama mbokk waa lawre yee ma àndal ndox sonal na leen fajar la ñuy jóg di ut ndox ba timis xam naa nag du sa domaine entièrement waaye loo ci mën dañu ci dimbale pour suñ jigéen ñi mën a am tuuti luñ noppaloo am ndox buñ liggéeyee moom jëwriñ ji bég lool ci yëg bi ko ñile yëg tax na muy dalal seen xel ci jafe-jafe yi nga xam ne jigéenu département bu Kanel ñu ngi koy jànkonteel. di wax ne son excellence le président Macky Sall ci gëm jigéen ak fonk ñu ak bëgg ñu jëm ci kanam moo tax mu jël nag dans son programme Sénégal émergent nga xam ne programme bu mu tëgg pour askan wi la mu jël nag les femmes nekk au cœur son programme par les beaucoup de projets et de yoo xam ne jigéen

politique excision si moy loolu président Macky Sall yoon la nak bi dox on est sur la bonne voie te yakarna naa loolu dina ex inshallah bu ci yàlla àndee. ci lolé mom Ndeye sali job jang ci programme bi nga xamné ne laal na ko rek ngir fexé jigen ñi mënal seen bop taxna mu jébal fukk ak ñetti commune département bi juróom ben fukki million ci suñuy copar jëm ci walu financement ak it ay jumtukaay yu mu leen jaglél dañu bu apporter contribution tey. Les indi ay financement indi matériel d'allègement parce que j'ai ñi nag alléger les travaux domestiques de de dugg seen bopp mon am temps pour jàng am temps pour liggéey am temps pour former am temps aussi pour des formations mais am temps aussi pour le faire je pense que c'est essentiel Donc, moo tax indi matériel pour j'appelle y ko y a ne peut-être bu ñu mais aussi les responsables des mouvements de femmes aussi pour la répartition de ces matériels. les financements aujourd'hui a changer de paradigme changé ni ko doon defee parce que dañuy financement yi quand même yaakaar naa depuis 2012 ba léegi li ci dugal ci xaalis bari na c' est des milliards et des milliards mais tey jii si on a faisait la évaluation dañu xam ne dafa des parce que ni ko doon jotee ak li ko doon defee du nekk lu benn moo tey ñu ko changé fekk ñi nga xam ne ce sont des femmes leaders am ay initiatives nangoo liggéey ñu jàppal leen pour renforcer seen ay projet parce que renforcement projet yooyu moo tax ñu sawar bëgg bëgg def ay entreprise yu am na yu ndaw ndaw ci biir quartier yi ak ci village yi ñu commune bu Kanel nag moo ëppale ci koppar yooyu nga xam ni jébbal nañu ko jigéenu département bi ndax am na ci fukk ak juróomi million yeneen commune yu ci mel ni Woro Sidi Orkadiéré Sinthiou Bamambé Bokiladji ak Aouré ñoom jot nañu ku ci nekk juróomi million ci koppar bi juróom-ñaari commune yi ci des ñoom ku nekk jot na cee jot ñetti million si suñuy koppar